wal taatifi bi nadratin taati lana bi zafari tey ñu ngi ñëw ci suñu darsu nasiha di souhaiter joyeux anniversaire suñu sëriñ suñu sang suñu imam suñu bàyyi ruuxu suñu xarit suñu lépp ci yàlla ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér c'est mooy Seydi Mawlaaya Baye Ousmane Dieng ñu ngi ndokkeel sëriñ bi bisam bi nga xamante ne mooy dëgg-dëgg bisam dellusi dellu si bi nga xamante ne ci la feeñ ci jamono di bis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na màggal anniversaire waaye ci jaamu yàlla la ko doon màggalee ndax dafa doon woor bisu altine ñu laaj ko sababu koor gi ci altine bi mu ne zaaka yowmu alladi wulittu fiihi mu ne mooy bis bi nga xamante ne ci la gane si àddina kon doomu aadama am nga droit nga màggal sa bis bi nga xamante ne ci nga juddu ndax sunna la yaa ngi dégg ci eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy bis bi nga xam ne itam eh, eh, ci lañ ko tuddee Muhammad moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam sunnaay anniversaire moom laa bëgg a jàngale ndax euh, biñ ko waxee loolu boo demee ci bët ibnu seydi dafa wax ne ahlan bi mi summi muhammadan xayra ismi ramzan li maanal ismi min jëddihi di yéen jëli mu ñu ngi ndokkeel ahlan bi yow mi summi ñu ngi ndokkeel bis bi nga xamante ne ci lañ ko tuddee muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy tur bi nga xam ne moo gën ci tur yi mu ne xayra ismi mu ne ramzan li maanal ismi junjóg maanaa tur bi nag maanaa junjóg maanaaw tur bi min jaddihi mu tukkee ci maamam li yeen ngir màggal ko nga gis ne nag sëriñ bi itam Mawlaay Baay Usmaan ñu ngi ndokkeel ci bis bi nga xamante ne ci la gane si àddina mu ngi si àddina ci nduur ndur dégg nga Euh, mu nekk euh, dëkk boo xam ne mu ngi ci région Kaolack euh, di fi nga xamante ne foofu la feeñ ci jamono mu nekk itam jëmm joo xam ne boroomam moo ko indi dégg nga ginnaaw ba nga xamante ne yebal na ko mission fii ci kaw suuf te mission bi mooy lan mooy mission wu jël doomu aadama yi defar leen yaa ngi dégg delloo leen seen borom loolu moom mooy mission bi lu mu rëy rëy rëy loolu la waaye lum mu euh, euh, tuuti tuuti itam loolu la te mission du gën a rëy dégg nga euh, mission boobu noonu mission du gën a féete ko mission boobu noonu ndax am na benn ay alquran boo xam ne dafay faral di ko jàng lu bëri mooy taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an la na'budu illallah wala nushriku bihi shay'an sëriñ bi Baye Ousmane dafay faral di jàng aaya boobu lu bari mooy kaay leen ñu jëm ci baat boo xamante ne ñun ñëpp a yemoo ci moom dégg nga ñun ak yéen julit ñi dégg wala yéen xeefir ñun ñoo yem ci moom yaa ngi dégg eh, buñ jaamu kenn ku dut yàlla te buñ ko bokkaale itam ak dara aaya boobu noonu bu làmboo lu bari waaye liñ ci namm rek kalima boobu taalaw ila kalimatin kalima boobu liñ ci namm mooy baatu laa ilaha illallah mooy baat bi nga xamante ne ñëpp ci yem chrétien beeg juif beeg yahud beeg ñëpp ñëpp ñoom ñoo ñoo ci yem parce que baat la boo xamante ne yonentu waxu na ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah day gis ne kon mission sëriñ bi yëpp daf ko tënk ci loolu tënk ko ci lan mooy jóg defar nit ñi jëme leen ci yàlla te loolu mu ngi ci royee sëriñam Baay radiyallahu anhu parce que Baay dafa waxoon ne fa qultu laa ilaha illallah muhammadun arsalahul ilah fa faada minni sirruhu fala ahad yaqsudu nii maa arafa allahu samad dama wax laa ilaha illallah yàlla moom ma yónni mu ne amul kenn kuy jóg jëm si ci man mu ne lu ne dinaa la xamal yàlla kenn ki dinaa xamal yàlla kenn ki nga dama wax laa ilaha illa yàlla moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu laa ilaha illa muhammadun arsalahul ila loolu la bàyyi wax ma nga dama wax laa ilaha illa ne yàlla moom moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mbootu yàlla nag ba bee ci man kenn du jóg jëm si ci man lu dul dinaa la xamal yàlla kenn ki subhaanahu wa taala nga gis ne sëriñ bi itam bi mu ñëwee ci loolu la ko yàlla dégg nga euh, jubal mu nekk jub goo xamante ne Baay radiyallahu anhu loolu la doon sàkku dégg nga ak mboolem koo xamante ne topp na ci koom parce que dafa wax ne man mosutuma ànd mosuma ànd ak ku doyati te mosuma maanaam toogaale itam ak ku doyati wala ab jaahil loolu la Baay waxoon radiyallahu anhu kon waxtu woo gisee ci pays baay bi dégg nga sang yu toll nii sang yu mel nii lu mel ni ki Baay Usmaan nga xamante ne dëgg-dëgg sang lañ dégg nga waaye dëgg-dëgg nit ñu mat lañ ci yàlla nit ñoo xamante ne. Eh, niñ doon taggee saxaaba Cheikh Tidiane mun nañ leen taggee lu lu ko raw dégg nga ànd ak nag Cheikh jaani moom mooy sëriñ bi moom mooy madadul xawmi dégg nga waaye nag mbir moo gis rek waxtu wu nekk tëjëli bu jógee ko ci pays yàlla bi ñëw dégg nga maanaam mu romb ci pays ñëw ci beneen pays dafay gën a amaat doole dafay gën a yokkaat dafay gën a taxawaat masalan yonent bi salaalu salaam maqaama bi mu amoon ci jamono nubuwa ba mu ñëwee feeñ ci wilaaya ci Cheikh jaan yi dafa yokkaat yaa ngi dégg waaye Cheikh Tidiane maqaam bi mu amoon itam yaa ngi dégg ci eh, ci ci ci eh, wilaya bi mu ñëwee ci xilaafa ci baay maqaam boobu dafa yokkaat yaa ngi dégg te yàlla waxoon nañu loolu ci alquran maanaam sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin eh, minha aw bi mis aw misliha dégg nga aw misliha dégg amul benn aaya boo xamante ne dinañ ko nasaxal masalan benn aaya boo xam ne dinañ ko jëlee fa mu nekkoon lu dut dinañ fa remplacer aaya bu mel ni moom wala aaya bu gën kon da gis ne waxtu nekk te jëliyaate ni kéem ni mu gën a demee noonu lay gën foore fooree noonu la gën a amee doole yaa ngi dégg loolu moo tax ma ne la sëriñ bi mën nañ leen ràngal garaatu euh, euh, euh, lu ëpp lañ daan waxal saaba Cheikh Tidiane yi te Cheikh te Baye wax na Cheikh Tidiane jaani kat lahu saxbun ka aqmaarin zawu fathin wa asrarin wa tamkinin wa anwaarin fa kullul aynu ayaani Cheikh Tidiane amoon na ay saaba yoo xam ne ñu ngi mel ni bit ñu ngi mel ni weer wi dégg nga ci xam-xam ñu ngi mel ni weer wi ci leer ñu ngi mel ni weer wi ci wilaya yaa ngi dégg parce que weer wi dafay tibbee leeram ci biir jant bi te jant bi mooy bu nubuwa yaa ngi dégg fees googu muy fees yaa ngi dégg ba mu delloo ko ci biir mbindeef yi te mbindee fu moom mooy globe terrestre bi yaa ngi dégg noonu la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu meloon moo tax bàyyi di ko taggee noonu ak saxaabaami mu boroom borom fattu lañ woon borom yi asraar lañ woon dégg nga waaye ñu àggoon itam ci maqaamay tamkiin lañ woon dañoo daloon ku àgg ci maqaamay tamkiin mooy koo xamante ne dem na ba dara mënut laa yëngal bomb bu doon explose sa wet sax doo gestu kooku mooy ki àgg ci maqaamay tamkiin waaye gisuma waaye eh, comme sëriñ boobu ma doon gis noonu nga xam ne doon waxtaan ba yàgg rek xaw ma doomam la xaw ma taalibeem yuuxu rek mu bëgg a naaw ànd ak moom ñooñu àgguñ ci maqaamay tamkiin ki àgg ci maqaamay kiin moo koo xam ne waxtu àdduna bi yëngatoo sax dégg nga ñu bom bombardé yow gëstu sax doo ko def kooku mu àgg ci maqama tamkin dégg nga moo tax ne euh, euh, zawu fatin wa asrarin wa tamkinin wa anwaarin fa kullu na ay nu ayaanin borom tamkin lañ borom anwaar lañ ñoom ñëpp jëmmi Cheikhu Tidiane yi lañ radiyallahu anhu nga gis ne sëriñ bi itam dégg nga euh, xaal yooyu axwaal yooyu yaa ngi dégg loolu lu nekk la ci moom yaa ngi dégg borom wilaaya la dégg nga ku am wilaaya la boo xamante ne kenn du weranti wilaayaam dégg nga dégg nga koo xamante ne itam ku ku ku ku am asraar la yaa ngi dégg ku am asraar la waaye beneen bi itam ku am tamkin la parce que ku dem jiite mbooloo mu bari yaa ngi dégg te lu mën a xew duñ dégg benn yoon yaa ngi dégg nga nga nga def benn bruit benn bruit bi lim ci namm maanaam mbooloo mi lum bari bari bari bari toog mukk di wili pande say secret dégg nga kon dëgg-dëgg yow ku dal dégg nga ndax am na ñoo xamante ne bu ñu doon xamal tuuti dinañ génn ci biti wax ko àdduna bi yëpp dégg ko waaye sëriñ la boo xam ne waxtu wu xamalee jaamu yàlla rek mu ngi koy mu ngi koy eh, suturaal yaa ngi dégg waxtu wu mu xamalee yàlla rek mu ngi koy eh, muur malaanam kiiraay pour kenn bañal ko xamal dara maanaa ci ci lu bon dégg nga ku bëri yërmande la ci ay taalibeem ku ku ku ku tabe la ci ay taalibeem ku tabale ci xam-xamam yaa ngi dégg ku tabale itam ci ay asraaram ku tabale itam ci laaye biir ay taalibeem dégg nga dëgg dëgg kon li bay doon jàngale gis nañ ko loolu ci moom dégg nga murabbi la dégg nga waaye xabiir la kuy kuy kuy gëstu itam ay taalibeem ku xam la yaa ngi dégg li nekk ci ay taalibeem dégg nga waaye naasix la laayakatu biir la yaa ngi dégg laayakatu biir la du noppi nii nii rek waaye ku bari kersa la waaw loolu bokk na ci li ma gën a yéem ci moom dafa bari kersa sëriñ bi dafa bëri kersa duut ku nekk rek la mën a wax dina xam ci yow wala mu dégg ci yow waaye dafay am kersa sax pour jàkkaarloo ak yow wala wax ak yow danga gis ay taalibe yoo xam ne dañuy am jafe-jafe waaye sëriñ bi dafay am kersa sax pour toog ak ñoom yaa ngi dégg waxtaan ak ñoom naan leen defee leen ni defee leen wala juboo leen wala nangam nangam loolu lu nekk la ci moom te dëgg-dëgg Seydina Amar waxoon nañu ne islam ñu ngi ko clôturé kersa mu ne képp koo xam ne amul kersa du jullit moo tax dëgg dëgg jullit mooy koo xamante ne dégg nga borom kersa la da ngay am kersa yaa ngi dégg loolu gis nañ ko ci sëriñ bi na la kaamila irfan la itam ku mat ci xam-xam la dégg nga xam-xamu asraar xam-xamu yaa ngi dégg ay ay xam-xamu lawaaix yëpp da koy gis ci sëriñ bi dégg nga bu toogee di waxtaan ci xam-xamu asraar da nga naan xam-xamu asraar rek la xam bu toogee di waxtaan ci maarifatu billahi danga naan kii ma maarifatu rek la xam yaa ngi dégg bu toogee itam day waxtaan ak yow ci àddina ak yu demee noonu da nga naan waa sëriñ bi xanaa fu nekk loo dugg ci àddina kon genre sëriñ yooyu ñooñu la ñuy soxla nekkut sëriñ boo xam ne itam rek ne dafay toog rek tëju rek téye kurusam rek ne man maa ngi téye sama kurus gi nii rek déedéet sëriñ la boo xamante ne dafay dugg ci jamono ku xam jamono la waaye kuy saafante ak jamono la da nga xam lu bari te bëri looy noppi xam lu bari te bëri looy noppi dégg Eh, kaamila irfan la imaaman la njiit la njiit dafa am ay critère nu muy mel dégg nga njiit da ngay bëri yërmande njiit da ngay bëri sutura njiit da ngay am compréhension ci ñi nga xam ne ñoom nga topp njiit da ngay woyof ci sa kanamu ñi nga topp njiit da ngay jàppee ñi nga topp samay nawla lañ gënuma leen loolu la Abu Hasan Chadali radiyallahu anhu doon wax ne eh, ma moom moom bu daan toogat ci jotaayam moom Abu Hasan dañ ko doon tegal benn trône bu yéegee ba ci trône bi ba ci kaw mu tiim mbooloo mi mbooloo ay junni junni doomu aadama mu ne leen maa ngi leen di waatal ci yàlla mi yor sama bakkan bi bis bu ma demee ba am ci sama xol bi lu yem ni misqaala zarra maanaam lu yem ni pepp suuf ne man maa leen gën mu ne yàlla na yàlla rekki ma ba ma mel ni dàll yaa ngi dégg ci seen ron dégg nga noonu la noonu la Abu Hasan Chadali waxoon dégg nga loolu yëpp sëriñ bi dafay wane yooyu jikko suuf yi dégg suuf yi boo xam ne waxtu wu toogee ak di wax ne man kenn rek laa ci yéen dégg nga man jaama bàyyi laa yaa ngi dégg eh, loolu imaamu saalix moom rek moom moo moom moo war a def loolu noonu dégg nga mooy meloo itam yooyu ka <coughs> kooku nag boo ko amee li baay waxoon rek malik fu nafsak maanaam jox ko sa bopp àndal ak moom yaa ngi dégg nga liggéeyal yàlla parce que boo ànd ak moom rek am nga wéeruwaay yaa ngi dégg wéeruwaay boo xamante ne dégg nga yéegeekaay la pour nga jot maqaama yu yu yu ngi koy ñaana yàlla mu yàgg fi lool dégg nga mu ngi koy yàlla mu fekkee itam njëriñu njabootam ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xamante ne wali yàlla dina fa àgg ci maqaama yalla na yàlla yéege ko ci yooyu maqaamaat ñu ngi koy ñaanal yàlla wërsëg bu ubbeeku bu yaatu ba lépp li taalibe di séntu ci moom dégg nga mu mën leen ko defal ci lu nëbb ak ci feeñ ñu ngi koy ñaanal yàlla itam dégg nga yàlla kàttanal jëmm ji. yàlla bu mu màggatee nopp yàlla bu mu màggatee bët yàlla bu mu màggatee eh, eh, eh, kii tànk yàlla bu mu màggatee benn cër yaa ngi dégg lépp loo xamante ne ñu ngi koy xaare ci wali yàlla bu mara bu bu war a yóbbu mission yàlla bi fu nekk rek yal yàlla defal ko ko ci barki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi koy seedee ku baax la ñu ngi koy seedeel mbaax ñu ngi koy seedeel mbaax ñu ngi koy seedeel dëgg-dëgg mbaax ñu ngi koy seedeel njub dégg nga ñu ngi koy seedal njub ñu ngi koy seedal dëgg-dëgg ñu ngi koy seedal ragal yàlla itam dégg nga ñu ngi koy seedal ragal yàlla waaye ñu ngi koy seedal itam jaamukatu yàlla la nañ ci bàyyi xel sëriñ bi jaamukatu yàlla la sëriñ bi en quatre vingt euh, euh, euh, quatre vingt seize quatre vingt dix sept dégg nga quatre vingt dix sept dañ doon nekk ak moom këram yaa ngi dégg dinañ fa nekk di waxtaan ñun booba dañ doon jàng waaye dañ fay nekk di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba ay une heure deux heures du matin dégg ñu ñu dem tëri pour parce que dañoo war a jàngi suba waaye dañuy gis ne moom dafay continuer ci kurusam te pourtant dafay xëy ci ëllëg sa dégg nga dem dawali eh, eh, oto oto oto mbalitam yaa ngi dégg te ngay gis ne daanaka guddi gi du koy nelaw li yëpp daf koy jaamu yàlla moo tax su su maanaam yenn tool mbokki taalibe yi nañ góorgóorlu di roy sëriñ bi ci loolu noonu ñu bañ di yàccaaral parce que Cheikh Tidiane wax na ma wax na ne yéem na ma ku bëgg a jot ci maqaama yu kaw yi te mu ne sa guddi gi da koy nelaw te loolu sëriñ bi daanaka du nelaw guddi te loolu jikko Cheikh Ibrahima la radiyallahu anhu ndax Cheikh Ibrahima wax ne ne ñaari waxtu rek la doon nelaw yaa ngi dégg ci bis bi ñaari waxtu la doon nelaw ci bis bi dégg te loolu dëgg-dëgg euh, ku nekk kuy responsable war nga góorgóorlu ci loolu noonu yaa ngi dégg même su fekkee ne da ngay toog ba digg guddi sax nga yeewu def say ñeenti rakka. jàng sa alquran wala nga def sa astafurla wala nga def sa kii nga ñaan yàlla dégg nga tëddaat dégg nga woneel sa sa sa sa sa bëgg-bëgg ak sa yëg-yëg ne yaa ngi fas yéene jaamu yàlla sëriñ bi foofu la teg tànkam dañ góorgóorlu ci loolu noonu sang suñ ko waxee mooy koo xamante ne dangaa nangoo yenu responsabilité ñi nga àndal nga yenu seen responsabilité kooku mooy sang yaa ngi dégg kooku mooy sang ba di ibnu seydi moo ko wax mu sang mooy koo xam ne da ngay yenu responsabilité ñi nga ñi nga jiiti ñi nga jiite yaa ngi dégg luñ mën a daje ci jafe-jafe nga accepté ko nga yenu ko ak luñ mën a mel ci jikko yu ñaaw ak yu rafet nga yenu ko nga maanaam nangul leen ko nga ànd ci ak ñoom dégg nga te loolu gis nañ jikko boobu noonu ci ci ci sëriñ bi yaa ngi dégg njiit nekk sang da ngay nangu jafe-jafe taalibe bul gaaw a xaddi bul gaaw a découragé parce que taalibe yi ñëpp bokk ñu yem da gis ku jub da ngay gis ku jubadi waaye ànd ak ku jubadi gi na nga ko suturaal dégg nga xam ne kii kat yàlla moom boole ak moom dafa jubadi waaye su fekkoon ne ku baax la ko jubla yàlla du ma boole ak moom waaye jubadi gim jubadi moo tax yàlla boole ma moom te dëgg-dëgg war naa góorgóorlu ci moom ba defar ko dégg nga ba mu mën nekk nit ku baax kooku nag pourtant ku nekk xam na ne moom dafa jubadi waaye su demee ba yëg ne damaa jubadi dégg nga nga góorgóorlu ci moom ba mu baax kooku du la weccu ak dara ci sa àddina moo tax daf lay bëgg mbëggeel goo xam ne dafay jéggi dayoo sëriñ bi nag foofu la teg tànkam moo tax dañuy gis ay taalibeem dañ koy bëgg mbëggeel goo xam ne dafay jéggi dayoo parce que ñoom xam nañ fi ñu nekkoon ak fi leen jëlee ak fi mu leen indi loolu nag da nga taale bu nekk loolu la am ci sëriñam ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool lool lool lool te dégg nga ñu ngi guddal te eh, ay seede rek la parce que tey la bisu eh, eh, gane si àddinaam tey la bisu ci jamono ñu koy ñaanal yàlla dégg nga mu am at yu ëpp ay atu ay waajuram yaa ngi dégg at yu ëpp at Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yaa ngi dégg waaye mu ànd ak ngërmande ci zahir ak ci baatin ngërmande gi nga xam ne moom la Baay doon wax ne aru muridal baari li nusrati diinihi wa ubrizu lil jiilil jadidi misaala asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina muhammadin haq qadri miqdaari azim joyeux anniversaire Baye Ousmane Dieng ضخام وربع القبض طه المرفع كذا عضد عبل وعبل ذراعه مرحب راحات والأنوار تلمع دائرة الفضل كن فرنمي ورغي قد يا الله ñun lañ ci jël kese loo doon Sidi Barham